ahousubillahi min asheytaani irajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbi sallama tasliman asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñu ngi nuyu bokk yi ñu teewlu yépp ci turu jëwriñu Cheikh Ibra Fall ji di sëriñ Amdi Fall moom sëriñ Modou Fall Mbenda ñaan yàlla sunu borom mu yàggal ak nekkam fi te wéral ko di sëriñ bi di jottali ay nuyoo mu jëm si mboolem njabootuk sëñ tubaagee geeg njabootuk Cheikh Rafal gi waaye di si jiital nag sëriñam bu baax bi di seex moo Cheikh Modou Muntaxa di ko ñaanal sama borom yàggal ko fi te wéral ko ba naal yi mu am yépp ngir liggéeyal ko maamam ju baax ja ak waajuram ya ak magam ya ko jiitu suñ borom kàttanal ko ba mu defe ko nu kawe njortam te mu ànd kook taalibe yépp rek noonu la sëriñ bi jottaleet ab nuyoo ak i cant mu jëm si mbooleem njabootu sëñ gi fu mën a nekk rek sëriñ baa ngi leen di nuyu te di leen siyaare te di leen ñaanal sama borom kàttanal leen te wéral leen ba liggéey bi nga xam ne moom la ñu taawu borom dimbal leen ba nu àggale ko fan ko bëgg àggale di jottaleet ay cant ak i ngërëm ñu jëm si mbooleem njaboot gi nga xam ne mooy njabootu boppam gi mu ànd ak ñoom liggéeyub Seere Faal bi muy ñi nga xam ne ñoom la jaboote muy njabootuk Cheikh Fall gépp su ma waxee jaboot gi nag taalibe yi si lañ bokk rakk yi si lañ bokk doom yi si lañ bokk ñoom ñëpp mu leen di sant ni mu ko waxee démb rek si déclaration bi ñu defoon wax ne mi ngi sant njaboot gi si li nu weesu lépp ak fii nu toll te noonu la amee yaakaar it si lii nu dëgmal ndax xam na ni ñu ñëpp maase nañ xam li nu fi indi te bàyyi nu fi muy liggéeyal sëriñ bi rek déglu ndigali sëriñ bi waxtu wu rotee ñu jëfe ko ni ko sëriñ bi diglee sëriñ bi nag foofee rek la ne moo taxit waxtu wu ne mu ngi mu ngi mi ngi sàmmanteeg loolee ab jataayam mooy taataan ndigalu sëriñ bi rek waxtu wu ndigal li rotee mu jëfe ko ndigal loolu yi nag dafa mel ni moo waral sunu jataay bii wala bokk na si lu waral sunu jataay bii ndax bu ngeen gisee jëmm yi ñu teew ñu toogal nga xam ne ndigal dafa bàyyikoo ci sëriñ bi di sëriñ am Amdi Fall moom sëriñ Modou Mbenn di jëwriñ Seera Fall jëm si mbooloo moo xam ne mii mbooloo mu joxe bopp joxe seen bopp lañ jox seen bopp sëriñ bi te desaluñ si dara muy alali maam Cheikh Ibrahima Fall te sëriñ Omar Seck mi ma dendal di jëwriñ ja jiite ko ànd kook murit yi nga xam ne nangu nañ ñoom ñëpp nangu nañ maase nañ nangu àndandoo di yëkkateendoo di tegandoo ci ndigal yi nga xam ne mu ngi jógee kër Seera Fall di tàbbi ci murit yi Euh, sëriñ Omar nag jot ndigal si sëriñ Amdi Fall ngir kër gee nga xam ne mooy këru Cees ga mu yeesal ko sëriñ bi woolu ko fii ba mu ñëw xamal ko ne ko kër Cees kër gee nga xam muy kër Cheikh Rafal ga sa Cees dafa bokk si bërëb bi Cheikh Rafal yi te mm, am na mel na melokaan woo xam ne bii aaje woon daal ñu taxaw ko yeesal ko. jëwriñ nee na moo digal Omar Seck. ngir liggéey ba ca Thiès. ngir liggéey ba ca Thiès. mu mu dem ca. nee na mu dem ca. liggéeyu liggéeyu ko. waaw na sëriñ bi nee na ma ngi leen di sant. yéen ñëpp nee na mbooloo mépp nag àddina bépp nañ déggandoo xam ne alali Cheikh Ibrahima Fall sëñ Omar Seck sëriñ bi joxaat na ko ndigal mu dellu cees yeesal kër ga ba mu mel ni mu war a mel jox na ko ci ndigal na ko taalibe bi yëpp dégg. biir réew mi ak bitum réew ndigal la loo xam ne sëriñ baa ngi ni toog moo ko yeesal ci sëñ Omar Seck mi nga xam ne mooy na ci bi def sa seen jëf ak seenu ñax ndigal loolu yi nag la sëriñ Omar mii jotoon ci sëriñ bi sëriñ bi waxoon nu ne nañ ko yaatal nag murit yëpp xam ko yëg ko xam ni sëriñ Amdi Fall jox na ndigal sëriñ Omar Seck ak alali maam Cheikh Ibrahima Fall ñu dem Thiès nag lu dale si bi ndigal li rotee rek ñu daal di dem Thiès saytu kër ga lépp lu fa war a am ñu def ko fa euh, ngir waajale ko ndigal yi nga xam ne moom la sëriñ bi di jot dañu war di ko taxawoo foofee sa bërëb boobee ak it fexe ba bërëb ba mel noo xam ne ku fa dikk di nga xam ne lii yelloo ak bërëb bu Cheikh Fall jaar ba liggéeyal fa sëñ Tuubaa liggéey bu mag a mag a mag ndax taarix bi sëñ Mamour Ndaw mi dana si dellu si muy bërëb la bu am taarix boo xam ne bi Cheikh Fall am na fa ab diir boo xam ne bi liggéey na fa liggéey bu am solo liggéeyal ko sëñ Tuubaa Xaadim Rasuul moog ñi mu àndal sëriñ bi dafa jottali ay cant ak i ngërëm mu jëm si ñoom ñëpp ndax taxawaay yii kat ba sëriñ bi toogee jataayub Seex Ibra Faal ba nëga ni waxtu bu geesoo gis na leen si wetam li dalee sa màggal ga jaar si gàmm ga nga xam ne njëkkoon nañ leen faa yebal ñu demoon fa defar ko ba mu mel nee mu mel nga xam ne sëriñ bi loolaa waral mu mënoon faa dem man faa gàmmoo gannaaw bi mu jotee ndigal sëñ mun taxaa ba mu jógee sa gàmm ga ñëw fii si delluwaat si liggéeyub sëñ Tuubaa bii ba fii ba lii nu mujj taxaw muy tabaski yii nga xam ni liggéeyu alal imaam Cheikh Fall kenn ku ne teg na sa bët xam ni sëriñ bi sant na leen gërëm na leen ba tey mbooleem jëf yi fi jaar yëpp rek daje naag bëgguk sëriñ bi ba sëriñ bi jottali ay kàddu yu ngërëm ak kàddu yu cant mu jëm si ñoom ñi nga xam ne ñoo seq liggéey boobu di ko taxawu. moo tax nag ndigal lii bi mu tàbbee si ñoom it ñu daal li taxaw temm nag si daal koy def si yitte nag ak farlu sëriñ bi nag wax ni nan ko yaatal nag ba ñëpp xam ni nag ndigal la ngi nii loo xam ne képp ku si tabbi tabbi nga si ndigal loo xam ne kër Cheikh Fall la jógee jëm si murit yi te loolee defaluñ ko kenn ku du sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ndax lépp lu kër Cheikh Fall di faggu rek sëñ Tuubaa rek a tax mu di ko faggu kon nag murit yëpp xam ne Serigne Omar Seck ak alali maam Cheikh Ibrahima Fall jot na ndigal si jëwriñu Cheikh Fall ji ngir dem Thiès kër googee di kër Cheikh Fall ga ñu taxawu ko defar ko ba mu mel na mu war a mel mooy bâtiment ba fa nekk ak la war a am sa biir ak lépp rek ba xam ni sëriñ bi ku fa dem danga xam ni fii daal méngoo na ak bërëb boo xamante ni bi bërëbub Cheikh Rafal lay doon sëriñ bi waxoon nu yaatal wala ñu leeralaat ci murit yi ndax boo seetee jataay biit nii ñu toogee sëriñ Mamour Ndaw Baye Fall mi ngi nii toog ci wetu sëriñ Omar Seck ñu ñëwoon fii fi sëriñ bi nag nga xam ni kenn ku si nekk amoon nga ndigal loo xam ne da nga ko daa def di ko jëf ci sëriñ bi waaye gannaaw ba nga xam ne bii am nañu taw féexut xam ne sëriñ bi li mu bëgg mooy ñi bokk pas-pas bokk bëgg àndandoo di yëkkateendoo di tegandoo ci biir pas-pas boobee nag la ñoom ñii ñu amee tawféexug nag liggéey bi nga xam ne moom la sëñ Mamour daa taxawu te waxtu wu ne ñu doon ko seereel sëriñ bi muy ñi mu ko àndaloon ñu koy jëf di ko indi ci koor geek ci tabaski yeeg yi ko jiitu yépp ñu jël liggéey boobee nag boole ko nag mu fekk si nag liggéey bi sëriñ Omar Seck mii ñu àndandoo nag liggéey bi muy benn kon nga xam ne murid yi fu nu mën a nekk ñu xam ne sëriñ Mamour Ndaw ba ñii mu àndaloon liggéeyub Cheikh Rafaal bii nga xam ne moom loon taxawu di ko indi di ko di ko joyal si ki fi nekkal Cheikh Rafaal moom am na ndigalul liggéey boobee mu ñëw tabbi si biir liggéeyub alali maam Cheikh Rafaal ñu àndandoo liggéey bi su ko defee li si sëriñ bi jublu moom moo ko xam waaye ñun si suñu xel dañuy jàpp ni ndimbal ak yërmande rek bëgg mu gën a yaatu bëgg mu gën a jàppandi bëgg mu gën a aw aw yoon loole rek la si sëriñ bi jublu te ñun gannaaw ngërëmu sëñ bi la ñuy teewlu ndigal li rek la ñuy déglu kon fu ndigal li rote day daal doon waajib si ñun ñu daal di tàbbi sa loolee kon murid yi ñu xam ne seen liggéey bi daa jaar sëriñ Mamour Ndaw mu koy indil sëriñ bi sëñ sëñ bi dafa noo defal tawféex wax ni ñaari mbooloo wala ñaari kuréel yooyu dajale na ko muy alali Seera Fall ji sëñ Omar jiite ak sëriñ Mamour Ndaw ñi mu àndaloon liggéey boobu su ko defee ñu tënku si benn baat àndandoo di jotandoo ndigal àndandoo di ko jëfeendoo loolee la sëriñ bi digle ñuy sant ñëpp nag di gërëm ñëpp di ñaan si doolee sëñ seer Seera Faal ndigal li nga xam ne moom leen sëriñ bi jox yàlla na ngeen ko matale ba euh, mel na nga xam ne noonu la ko sëriñ bi bëggee euh, te ñu teewluwaat yeneen ndigal rek ndax loolu rek mooy seenu bëgg ñu ngi sant ñëpp nag di gërëm ñëpp di wax asalaamaaleykum wa wa barakaatu. asalaamaaleykum wa noo ngi santaat bu baax a baax di ziar sunu yaakaar euh, sëriñ Amdi Fall mi nga xam ne. tey moo fi maam Cheikh Ibrahima Fall di sëñ Mour Fall Mbende di ñaan sunu borom doole ko fa yàggal bu baax a baax te doole ko wér di santaat bu baax a baax euh, sëriñ daam ci kàddu yi am solo yi nga xam ne moom la yëkkati ci digalul sëriñ bi santaat bu baax a baax itam waa alali maam Cheikh Ibrahima Fall euh, ci njiital euh, jëwrin sëriñ Omar Seck général ak soxna Diagne Cissé ak mbooleem murit yi nga xam ne ñoom lañ ànd liggéey bi yëpp kon nag murit ndigal te ndigal jëfe kon ay ca murit ay ca murit ay ca murit ndigal jóg na te ni ko sunu baay bu baax ba baay safaa Seck di waxee mooy bu ndigal jógee njariñ jóg na ndigal li nag mooy Cees Cees gi nga ñu sëriñ bu joxañ nag ñu fàttaliku rek ci taarix ne keroog ba sëriñ Moud Fall Mbend ganee jamono di wayjuru sëriñ bii toog muy sëriñ Amdi Fall tey di maam Cheikh Ibrahima Fall ci 1904 ca Tasineer sëriñ Mbacke Fall Xari Diop ganee jamono 1904 mag ñi wax nañ ca ndànd at moomee la maam Cheikh Ibrahima Fall Baay dina ñëw tuxi si Thiès waaye li jiitu loolu itam nag euh, bàyyi ko woon a ba tey moom Cheikh Ibra ñëw cees booba mur itam bu mag ba ñuy wax Cheikh Babacar Lo te jébbal woon ci moom ci 1892 wala 1891 def ak seex Ibra Fall at ca gànjool maam seex toxal ko Thiès mu ñëw. dëkk si Thiès dal ak maam Ahmadou Baro Njëgeñ ci ndigalal maam Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Ibra bàyyikoo na gànjool ba tàyyi ñëw fekk si Cheikh Babacar kërloo gane si ko fa te boobu Cheikh Ibra amagul kër Thiès mag ñi wax nañ ne ci at yu mujj yi mu fa mujj la ko naa sëñ Mbay mu ne ko Fall mu ne ko ganaaru jaboot kat fa mu gën a wóolu lay denc ci cuujam nu kaa ah, wutal ma fi kër ndax ceeskat barab la daal wax na Touba dëkk la doom njaarim wanag la waaye Thiès laati mooy sa bàyyi Mudu Mbay Isaa ree na ko fàll luy pekk Cheikh Ibra na ko xanaa ruq boo am sa biir néeg da ca def dund ba nga gën a fonk na ko Cees laay fara góor fa laay góor daal di commencé nag Cheikh Ibra nag daal di jox mag ñi ndigal ngir ñu sanc Cees mag ñi wax nañ ne Cheikh Ibra génn alal ci ci pop ci boppam muy gaalu xaalis jox ko ku ñu wax euh, baay Ibrahima Kan muy wajuru Baye Cheikh Kan na ko nañ ma fa sàkkal kër nañu ma fa jëndal kër wax nañ na sax li mag ngi nettali nee nañ euh, Cheikh Ibra lam bëggoon mooy lépp li wër na Fall lépp Cheikh ëmbaale ko ndax bi njëkkee jënd dikk delloosiwaat siwaat xaalis bi Cheikh Ibra Fall daf leen dem leen dolli ñu ñëwaat jëndaat pénc mi muy ñaari titre foncier muy kër gi ak pénc mi ñu dikkaat Cheikh naa ah, da ngeen ko soxla ji ëllëg daan na yëngu gaa nga ca xël ga ñu dëkk Thiès xam nañ xël ga na Cheikh Ibra da koo bëggoon a ëmbaale moo tax Euh, lépp lu Cheikh Ibra waxoon nag mag ñi lañ ma daa nettali ne Cheikh Ibra ko daa wax daa feeñ ci jotaayab sëñ di Fall mii moom sëñ Modou Fall Mbenda loolu mu waxoon ne am na lu sëñ Modou Mbenda ñaanoon boromam ci sama jëmm ji la waaye bëri na lu ñu Cheikh Ibra dénkoon loo xam ne feeñ na ci jotaayab sëñ Amdi sëñ Modou Fall Mbenda ndax kat tey Cheikh Ibra muy sëñ Amdi Fall moo la Thiès ngir ñu yeesalaat kër maam Cheikh Ibrahima Fall gi nga xam ne Cheikh Ibra fa dëkkoon ba pare ay doomam ganee fa jamono Cheikh Ibra taxaw wax ne sama jaaro aqiqa nag daf ma fay réer te danaa ko for loolu ab junj la kon nag murit yi nañ bàyyi xel ne ndigal jóg na fan la jóg mooy fa dëkk ba Cheikh Ibra waxoon ne ndaw lu bëgg a sax Cheikh Ibra ne da ngay dëkk Thiès Cheikh Ibra ko wax de ne ndaw lu bëgg tënjël tënjal ne dëkkal Thiès ndax hee hee ab biddiw lay jàmm biddiwu Thiès dañoo bëri yërmande naa Thiès neex nañoo jëflante doom neex nañoo faylante bor neex nañoo leblante bor loolu général Amar Seck mi xam na ci dara kon nag Thiès la sëriñ bi yable kon nañ jóg fakku lépp lu ñu am ñu def ko ci kër googu nga xam ne maam Cheikh Ibrahima Fall la fa dëkk 1904 la toxu si sanc ko dëkk fa ba 1908 am ñu ne 1909 doomam ju baax ji ñuy wax sëñ Abdou Sakkour Fall mag ngi ne nañ moo fa njëkk a ganee jamono néeg yaay debbo saar booy dugg ci kër gi kàdd gi ci sa ndijoor sa càmmoñ nee mooy doon néeg yaay Debbo Sarr fa la sëñ Abdou Sakkoor gën jamono mag ñu baree baree bari fekk fa maam Cheikh Ibrahima Fall jébbaloo ci moom mën naa cee tudd sax ñu bari ñoo xam ne tey cees la leen Cheikh Ibrahima dëyaloon wala seenu njaboota nga Thiès fa la leen Cheikh Ibrahima Fall takk garat Cheikh Babacar Lo gànjool la jébbaloo waaye Thiès la mujj fi seex Ibrahima tey fa lañ ko denc loo yeen pencum leen ñëpp xam nañ leen baay baaba Ngom ci mag ñi toppoon Cheikh Ibrahima Fall ci Thiès la bokk ci xëy na donte na ci mujjug Cheikh Ibrahima Thiès bàyyi mu sekk sarsang Cees la ko maam Cheikh Ibrahima Fall féetale maam Mataala Mbay ci mag ña dëkk Cees ca la bokk bàyyi Ibra Cuun Sàmbanaar foofu la dëkk sëñ Ablaay Yaxin murit ga ñëpp xam nañ diggante ma maam Cheikh Ibrahima Fall Cees la dëkk ba ci lu wër tund Cees muy tund jandee rek nootu guy jama sëñ Ibrahima Wàdd nootu bàyyi Cheikh Wàdd Ndiaye Cheikh moor Ndiaye Sala noota sëñ moor Ndiaye Sala sëñ moor ja Njar tund jandeer fëpp fëpp ci mag ñi nga xam ni daanañ bàyyi ko la sëñ Moussa Ka wax ne leeram gi sar ba agsi Cees ku ñëw muy duy la ba nga fees lii nit ku ñuul ak nit ku weex ñëpp nga booba fa ngaay mexe kon góor yàlla yi Cheikh Ibra Fall defar Cees bari nañ lool Cees barab la boo xam ne Cheikh Ibra waxoon na waa sawu jant laa fi gàttandu si loolu moo waral tey jii ku fi mas nekkal maam Cheikh Ibrahima Fall di woote gàmmu Cees tàmbale ko ci maam seex ma fa daa gàmmoo Cheikh Mourou Moussa Fall daan fa gàmmoo ba ci ñu fi mujj di sëti maam Cheikh Ibrahima Fall tàmbalee ko ci Serigne moo Aminta mi njëkk a wuutu ci sët yi toog fi jotaay maam Cheikh Ibrahima Fall fekk nañ ko fa ba tey Serigne Cheikh Fall jëmm fekk nañ ko fa ba tey tey sëñ am dim sëñ Modou Fall mbenn ne fi yàlla na yàgg ci jotaay bi ñu di gàmmoo cees taxaw nag temm ngir ñu yeesal Thiès waaye liggéeyal fa maam Cheikh Ibrahima Fall loo xam ne day méngoog kër gi nga xamante ne bi tey jii Cheikh Ibrahima Fall moo ko sancaloon boppam ci Madina Fall googu nga xam ne eh, penc ak kër gi yëpp ca ca liggéey bañ mujj a liggéey mooy miir ba la ko waroon sëñ Abdou Sakkour Fall ak ki ko defoon ca la ma ngi nettali wax ne itam ne foofu ci pénc mi dañ ko dëkke woon waaye sëñ Abdou Sakkour moo yaatalaat pénc mi delloowaat Cheikh Ibra alalam tey jii sëñ am dim sëñ Modou Fall Mbende di Cheikh Ibra Fall tey moo jox ndigal alali maam Cheikh Ibrahima Fall ngir ñu delluwaat Thiès yeesal ko ba mu mel na mu war a mel ndax na ko ay magam daa defee ay wajuram daan ko defee loolu la fa yéene de saxal ko di ko fa defee muy gàmmu ki nga xamante ni maam Cheikh Ibrahima Fall daan na ko fa wootee kon nag murit ndigal ndigal jëfe nañ ca jëm wasalaamu aleykum wa rahmatullaahi taala wa barakaatu